waaw ginnaaw bi ñu euh, fas leen yéene amal benn sitting fële ci Diamniadio ci euh, ministère de transport préfet bu Diamniadio euh, sous-préfet bu jam ñaajo dafa interdire manifestation boobu loolu nag moo tax tey ñu daje woon pour fësal suñu quatrième plan d'action di ñaawlu nag jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ñu koy teg muy injustice ndax jàpp nañ ne ci réewu yoon lañu nekk ci réewu liberté lañ nekk suñu sart réew ci article 8 bi wax ne bépp sénégalais bépp citoyen am nga droit manifester sa contentement comme sa mécontentement loolu muy droit boo xam ne nii euh, exception la war a doon ñu koy interdire mais dañu nemmiku ne lu man ñeenti yoon ñoo ngi euh, déclarer pour def manifestation mais autorités yi dañ ñu koy gàntal ñu jàpp nag ne loolu kenn nekkul ci ginnaaw ku dul suñu ministre de transport muy Mansour Faye moom moo ne ci ginnaaw parce que euh, demandé nañu pour manifester fële ci place de l'Obélisque ñu bañ ko ñu demandé pour manifester fële ci Hann mu bañ ñu dem Liberté 5 mu bañ ñu dem Diamniadio ñu bañ te même motifs yi ñuy génne ay motifs la yoo xam ne nii tegewul fenn ay infiltration ay trouble à l'ordre public yu kenn xamul ñu bu ñu bëggoon trouble ordre public mën nañ ko def. sans ñu demander autorisation mais bu ñu leen demander autorisation c'est pour que ñu mën a exercer suñu ay droit ni ko war a defee léegi nag suñu quatrième plan d'action mooy danañu seeti képp koo xam ne yaa ngi xeex ak ak yelleefu doomu aadama danañu seeti société civile bi waxtaan ci ak ñoom danañu seeti aussi syndicats yi nga xam ne nii ay syndicats ay centrales syndicales lañ danañu seeti euh, syndicats internationales yi comme ITF. ak organisation financière yi nga xam ne ñoom ñoo ay partenaires du Sénégal dañ leen seeti parce que ñun ay acteurs de développement lañ ay citoyens lañ bëgg a exercer suñu métier suñu métier nekk day yàqu ñu bëgg a taxaw ci lu ko saafara état du Sénégal euh, ci njiitalu Mansour Faye di di xeex suñu àq ak suñu yelleef euh, buñ ci jógee aussi dinañu seeti ñi nga xam ne ni ñoom ñooy kilifa yi diine yi ñoom ñëpp nañ leen seeti waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xam ne ni transport mi ngi koy dund. te ñi ci ëpp nekk seen ay taalibe daañu leen seeti waxtaan cee ñoom bu buñ ci jógee nag duñu dañuy continuer combat bi parce que il est hors de question ñu arrêté combat bi tant que gouvernement bi lii nga xam ne ni moom moo ci nekk bàyyi euh, euh, application yi ñu nekk ci te jaaduwut ñu koy seetaan muy continuer waaw loolu daal lañ ne woon nañ leen ko wax. amul benn yoon boo xam ne nii woo nañu mais ñun waxuñu leen pour ñu woonu defuñu fixation pour ñu woonu dañ ne réglementation bi nañ ko respecté képp koo xam ne yaa ngi def transport na nga respecté li nga xam ne ni mooy suñu règlement mooy nga am autorisation def transport. loolu la ñu wax gouvernement bi ne ko na ci jóg parce que am na ñoo xam ne ñu ngi def transport te amuñu autorisation loolu lañ ne gouvernement bi na ci jóg gouvernement bu ci jógoon suba taxaw di ko saafara même bu ñu woo ñun garaawul. donte li gën a rafet mooy bu fekkee ay citoyens jóg nañu di ñu di manifester di ñaxtu jaar fi ñu war a jaar yow en tant que autorité boo xam ne jàpp nga ne yow réew mi nga fi nekkal di nga leen woo waxtaan ak ñoom ba xam lan mooy seen i jafe-jafe wax leen li nga ci man su ko defee yaakaar naa mën ngeen a déggoo loolu lañ yaakaar ne moom moom moo doon war a taxawaayu gouvernement mais gis nañ ne boobu ba dañ ne patt patteeral di def ay contournement des fois ñu wootee wax yeneen wax yoo xam ne c'est lié à notre combat mais nanguwuñu def face à face ak ñun waaw. Voilà. Bon, c'est hier vers 20h que le commandant du brigade de gendarmerie de Diamniadio nous a notifié que le préfet, le sous-préfet de Diamniadio a interdit notre manifestation qui devait se tenir ce vendredi 16. Euh, ce pas la première fois que l'administration euh, nous brandit ces genres d'interdiction en évoquant des motifs de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation ou risque d'infiltration à des personnes inconnues. Donc nous déplorons parce que tout le monde sait que si on voulait trouver, troubler l'ordre public, on pouvait le faire sur d'autres manières. On n'aura pas à faire à déclarer euh, une déclaration de sitting, mais on peut le faire sur d'autres manières. Nous déplorons cette attitude venant de nos autorités, le sous-préfet de Diamniadio et le préfet de Dakar. Euh, cette rencontre, nous avons convié cette rencontre pour annoncer à l'opinion nationale et internationale que notre combat de lutte va continuer. Ce n'est pas à M. Mansour Faye et de ses services qui vont nous dont il gère le, notre système de transport ici au Sénégal. C'est pas à monsieur Mansour Faye. C'est pas monsieur Mansour Faye de venir nous décourager ou l'administration pour montrer notre colère envers euh, les difficultés que nous rencontrons sur le système du transport ici au Sénégal. C'est bon. Bon, nous allons brandir notre, euh, notre quatrième plan d'action. Nous allons faire une tournée au niveau des chefs religieux au niveau des centrales syndicales, aussi aller voir les partenaires financiers euh, de, euh, de l'État du Sénégal pour leur montrer que ici au Sénégal, on ne respecte pas les droits et libertés des travailleurs. C'est ça notre premier, notre cinquième plan d'action. Et on va organiser cette tournée pour essayer de massifier ce combat pour que l'État puisse venir euh, gérer les problèmes que nous rencontrons, que nous rencontrons ensemble. Nous demandons à toutes les organisations syndicales, les centrales syndicales, nous allons voir les chefs religieux, nous allons voir les partenaires au développement, comme euh, l'ITF, qui est une organisation internationale, nous allons les voir pour leur montrer le, le problème que rencontrent les, les, travailleurs ici au Sénégal. Jusqu'à présent, il n'y a pas une, rencontre avec euh, le regroupement des taxes avec le gouvernement du Sénégal. Des fois, il y a le directeur des transports terrestres, M. Waldio Ndiaye, euh, qui fait des appels sur d'autres formes, mais c'est lié à notre manifestation. Donc, notre objectif, ce n'est de rencontrer le gouvernement. Nous, notre objectif, c'est de pousser à l'État de régler les problèmes, de, respect, de les lois les règlements de ce pays. C'est ça nous voulons et nous les poussons vraiment à régler, gérer les problèmes du transport, surtout les problèmes que rencontre le secteur du transport, notamment